joxee Lamine Gueye sport rek wàcc nga. parce que hmm. sujet bi bu ñu ko waxee rek suñu xel lay dem ci moom mais aussi. les sportifs sportif c'est l'occasion aussi. de le président d'un club. quoi ouais, c'est l'occasion de lui de lui rendre hommage. parce que au-delà ah, de la radio non et à la télé euh, c'est quelqu'un dans le milieu sportif. dans le département de Pikine qui est très respecté une fierté quoi. donc ñun dañ koy gis mu nekk tey ñi magal équipe bu moo xam ci nawetaan bi la moo xam ci football ci championnat. Euh, Lamine humilité boobu rek la am mais tey bokk na si lim contribuer lu bëri surtout ci AS Pikine ak yeneen lu dëgg ma la ciy félicité comme nag sport la ñuy wax te Pikine laa dëkk maa ngi nuyu sama xarit sama doom day Ama Baldé sama pël bi borom teg fa jeexal xam nga ñun dañoo teg jeexal waaw nag di ñaan waa Pikine nañu gunge suñu ay doom yàlla may ko ndam nañ ko jàppale. Euh, Cheikh Omar. Euh, reviens sur dinaa ñëw sama question sport la ah, mais ama boobu ay Ama Balde. ma ne loolu c'est autre chose. du autre chose man Ama Balde laa faral Pikine laa dëkk. déggoo li ma la xalaat. na nekk ku ko neex ku neex wala Sénégal ah, ku mu neex la neex ah, ñun daal li am Pikine neex na. Ah. am naa Ama am naa Boy Niang. teg fa jeexal la. jeex na ba pare nag di ko ñaanal parce que moom aussi bërelul boppam sunu génération lay bëril département Pikine lay bërel. waaw na ko waa Pikine ñëpp taxaw jàppale ko. waaw waaw ñool ñool ci football bi. waaw balaa may ñëw ci football lépp lépp ci biir la rek comme sport la. Hmm. occasion la aussi pour ñu wax yaa ne ma maa ngi ci basket du dëgg. waaw euh, dañu am ministre des sports bu ñu indi muy euh, Lat Diop. je parle pas impact politique bu mu am ak wala leadership politique ce qui m'intéresse ki nekk na ci milieu sportif. ñëw na fekk Guédiawaye football club n'est-ce pas Lamine. Mm-hmm. mu nekk président Guédiawaye football club. Mm-hmm. gis nañ résultat yu Guédiawaye football club def match bi ñu joué woon stade Ablaye Wade Diamniadio ñu organiser ko bi ma ñëwee jour ba organisation bu ne organisation bu parfaite mu organisé ko. man tey suñ ko joxee ministre des sports jàpp naa ni dina jël disposition yëpp pour que équipe bu Sénégal bi nekk équipe bu conquérante équipe boo xam ne buy dem nekk champion en titre que ñu mettre leen dans les meilleures conditions. de performance pour ñu mën a gagner mais di ko xamal ni aussi bu mu nekk ministre euh, du football ah et du parce que la lamb ñi ñu ngi koy tudd ci seen signature yaa ngi dégg kon nga gën yaatal mission pour que la pratique sportive ñu démocratiser ko Lamine ba ñëpp mun cee jot. Mm. yeneen discipline sportive yëpp ba ci euh, escrime mooy ñuy épée ba ci basket ba ci volleyball ba ci beach soccer bi ñu taxaw leen. kéro gis ngeen suñu équipe nationale muuma yi euh, les surmouillés euh, dem nañ ba am résultat ba egg fu fu honorable te pourtant amoon nañ ay jafe-jafe yu bëri ci seen wàllu euh, dispositif yi nga xamante ni war nañ ko am ak ay matukaay donc kon ñu koy wax ni am na sas boobu ak responsabilité boobu d'autant plus que kenn du ne musul investir ci sport parce que déjà bi muy nekk directeur LONASE gis nañ ci biir championnat bi gis nañ ci équipe donc dañuy xaar ci moom aussi mu mu euh, ministère des sports xaar et am nañ ni que loolu dina dem bi euh, Mohamed match bi ngay may laaj match bi dama daw après classement bi résumé match comme ko Cissé indi système Lamine il se cherche parce que mën nga am système mais il faut des hommes qui l'animent parfois dina am système de jeu boo xam ne boo ko tegee da ngay soxla ay latéraux yoo xam ne dañuy mën a pistonné pour yéeg ci kaw te dañ doon wax équipe Aliou Cissé day am difficulté suñu amee équipe boo xam ne dafay jouer bloc bas n'est-ce pas man maa ngi ko dégg sax mu ne moom gis na léegi solution pour bloc bas maintenant jouer un match nga am penalty Cameroun mënoon na am penalty wala nga am penalty donc ça c'est benn exception bu ndaw la man j'étais pas pour sax ñu def match bi parce que pour man dañuy dem Coupe d'Afrique euh, bi ñuy programme match bi un tirage def nañ tirage pour man soit ñu changer adversaire wala ñu def regroupement d'entraînement parce que soo jouer à Cameroun Cameroun di nga jàng ci moom mën nga am la bataille psychologique bi parce que am nga victoire et c'est un regain psychologique mais aussi ça va permettre au Cameroun de pouvoir xam say joueurs parce que normalement nous dañu waroon envoyer seen directeur technique national pour superviser ses matchs xool say jours, xam la mm. donc euh, Lolo, Gisinga, Cameroun et ça te permet aussi de te juger. jauger je crois que le Sénégal a besoin de la victoire parce que le euh, match bi ñu jouer joué l'Algérie Algérie dafa ñu un de goût amer cest là que Mohamed Sénégal le match bu ñu joué pour am parce que Amna na fooy toll équipe tu es l'équipe à abattre mais historiquement, historiquement ci ci le football les ñu nag Cameroun a nañ nombre de victoires euh, Cameroun est éliminé et puis c'est une grande nation de football. Euh, ñun fii bi ma demee Cameroun dama dajeeg seen entraîneur bi Rigobertson ci ay seen aéroport bi ñuy wax dama gëm ko njëkk laaj dama ne ko ana njëfi mu ree xam nga ñu waxtaan échanger donc le Cameroun c'est c'est c'est quand même même bu amul dayo bi ngay soxla sax dañu am benn histoire am benn style de jeu am benn façon boo xam ne moom lañ am taxawaay mu ci des nag wax naa leen ko garab bi ma gisee liste Aliou Cissé yaa may dégg. Mm-hmm. milliers yi ñu am yëpp ñoo bokk mi léegi ñaam yëpp ñoo bokk profil c'est-à-dire tey war nañu euh, amener du jus amener un peu de la créativité boobu ñu am ko peut-être c'est ce qu'on attendait de Iliman Ndiaye bon yóbbu nañ ko en attaque Aliou moo xam ci joueur mi mooy nekk ak ñoom mooy xam ci ban disposition la leen teg euh, Crépin Diata, il a été au milieu Euh, on s'attendait à un Crépin bo xam dina am benn dayoo parce que derrière ça Mané man li ma doon gis Crépin bi muy doog a ñëw on voyait que même Crépin mëna dem sax ba boot équipe bi. joué nañ ko fii ci milieu terrain joué nañ ko aile jóge na ci ay blessures tey indi nañ ko latéral pour mu euh, mu fatt benn trou il commence à s'habituer mais ku doon nekk ci milieu di nekk ci kanam du mujj wàcc ci latéral ça veut dire que y a un problème donc pour man latéral euh, poste boobu poste sabali la dañ koy ñaanal yàlla may ko wér ak kattan mu taxaw parce que sabali saa fa nekkee seen garantie maintenant euh, latéral moderne tey Lamine dañuy soxla koo xam ni dafay monter ci attaque bi pour pour ñu yokk mais beneen bi dañu am problème mu dugal bi grand man gëj naa gis neuf bu xarañ ci demb ba et d'ailleurs en parlant de Sénégal Cameroun match bi ñu mujjee joué fii à Dakar ak ñoom 90e minute mooy la euh, demb ba ba mu dugal kii ba bitu rato bi mais tey boo xëyee ñu ne la Habib Diallo du dugal attaquant boo xam ne c'est un tueur jël ba rey man gisaguma ko fi Sadio Mané aussi mais on a Habib Diallo mais rayagul. Oh, rayagul qui marque des buts ah. aussi c'est un neuf. oui mais bu mais il marque des buts personne blessé c'est que tamit euh, Habib Habib aussi Habib booy xool lors de la dernière CAN il n'était pas titulaire. oui. Euh, Boulaye moo nekkoon euh, titulaire. lépp il n'a rien tactique. mais mais mais Cheikh Omar xam nga problème mooy. mais mais mais l'essentiel c'est de gagner et le Sénégal gagne. oui mais mais. Euh, mais non mais mais aussi gagner aussi. Euh, da solo. Ah, facile façon wu gagner lui aussi. mais non peu importe la manière mais c'est à l'image des grandes équipes aujourd'hui coupe d'Afrique qui marque début oui. non je dis coupe d'Afrique. oui euh, Cheikh allez-y coupe d'Afrique. président je vous xoolee. da Vous gis ni. coupe d'Afrique. waaw li am solo moi, équipe B, da ngay xool les plus grands buteurs. Mm. africains yu nekk dans les plus grands championnats. Mm. Euh, bu ñu yegsee Coupe d'Afrique, Amana, amaana xëy na sax benn but lañu am wala ben ñaar but té seen équipe gagné na le trophée au au truc. dëgg la mais ñun am nañu joueur yo xamné ne. euh, au niveau de l'attaque, yo xamné qui peut faire la différence. à tout moment on a on en a. Ah. on en a maintenant nag bii bi bu dee Kalidou Balde moo ko dugal wala Sabaly ce n'est pas le plus important. mais la question de de est très pertinente Moi, aujourd'hui euh, est-ce que euh, sunu lan on waral tax sunu attaquant ñu dougal dugal. des buteurs grand mais duñ dougal fan. mais buteur des buteurs mais un Sadio pas Sadio Mané. mais euh, li ma wax nii équipe bi kese mais c'est-à-dire football footballu Sénégal. un Boulay qui marque des buts Espagne Espagne qui ah, marque des buts. il marque mais non man Limbo, li c'est je sais pas si dans c'est dans dans la formation que nous avons tout à l'heure j'ai cité Demba Ba. Ah. Demba Ba il a été formé formaté comme un tueur. un buteur un neuf complet. comprendre mais tay, Boulaye am style de jeu bo xamné. Mom moom mën na jóge ci ci ci laaf bi wacc si axe bi comprendre Habib Diallo am na profil profil am. mais neuf soxlawul loolu neuf soxlawul. ay di Sadio Mané di neuf moom. <laughs> neuf moderne yi jox leen bal bi ci kanam. man loolu laa wax cest à Mais xam nga man li ma bëgg a wax. c'est un profil fixe c'est un profil Giroud. c'est ça oui mais man li ma bëgg a wax. c'est-à-dire dans ton attaque tu as beaucoup de profils tu avais un Mbaye Mbaye Niang dem na fi compétition mais système de jeu Aliou Cissé utiliser wuñ ko comme attaquant mais dañ ko utiliser comme quelqu'un qui va retenir la défense bi nekk ci kanam. quand on jouait face à, l'Angleterre ou Hollande parce que niñ doon jouer Boulaye Dia dañ koy indi pour mu euh, fixer défenseur yi la mais dama ne la amna fuñu tollu ci compétition parfois tu joues avec un bloc bas parfois nga soxla kat un un un buteur manam un serial killer dans le profil benen profil bi nga xamni soxla nga ko tay Sénégal tek coup franc door mu dugg gëj na ko gis man Sénégal tek coup franc door mu dugg si ka gëj na ko gis Ari Saivet la ko mujjé gis mu ngi fonctionner c'est un militaire dans le jeu ñi nga am ci milieu défense cest man ci man ci ni fubale ci e, esprit boobu Sénégal amu ko woon gatsa gatsa nay saf nay nay mais par contre dans le jeu de Aliou Cissé le jeu qu'il produit keroog ak Algérie gée nañu ak Algérie ñoo Algérie ils ont été réalistes Ils ont ko dem et dominé quand même. Dominer, dominé gagner à sens. dominer hein. dominé gagner sans mon sens. match bi on s'est contenté d'un penalty. après on va aller jouer ah, mais penalty c'est aussi jeu oui mais imagine. Ah. penalty moi il a il bu ñu wax y la xam la Cameroun dafa amoon jamonoom tollu diggu ndëndëm. et pourtant on domine dans le jeu. oui mais Côte d'Ivoire am na jamono boo xamante ne dafa am Yaya Touré Kolo Touré Didier Drogba mais ñun jamono ji championnat boo dem doomu Sénégal moo nga fa di doxal. ñu bokk ci meilleure équipe africaine ba pare. très bien sol mbubb champion d'Afrique kon dañuy dox doxu champion d'Afrique doxu champion d'Afrique xam nga mooy la amul calculer. en à la fin du match Aliou Cissé jox na gars yi rendez-vous Cameroun nee na leen nii. waaw mais loolu. c'est-à-dire euh. fi suñu toroxal da nga koo fàtte. Euh. fini nii ba booyee di taal stade bi yàggul ñi ñu dugaloon biti ay doomu Sénégal lañ Kaolack gii lañ dëkk Sénégal ak Gambie benn la ñoom waa Gambie grande gueule lañu seetaan. Hmm. mais tey c'est en derby et ñooñu tey ils vont pas se laisser faire. Hmm. Guinée euh, Nabi Keita mu ngi fa moog Sadio Mané ils ont joué bokk na ci benn génération tey si championnat xam ban dëkk. le meilleur buteur bu fa. mais un seul jour un seul joueur ne fait pas une équipe. Hein. voilà donc donc tey. on doit avoir cette osmose. te ñun on a comme ni nga waxee une équipe. mais yow sa beneen deuxième góol bi moo di jaw ci camp boo gisee. déggoo ma ne la tu as une équipe xanaa xoolal yeneen réew yëpp ku nekk ay ñaar Ablaye yeneen joueurs yëpp ku ci nekk benn ñaari joueurs nga yam waaw waaw mais Sénégal boo ñëwee ci équipe am comme ni nga ko waxee joueur bu ci nekk kilifa la ca fa muy fubal waaye yow paa boo fi jox ma ne booy booy ndaw koo si jox équipe sa problème non man am problème man bàyyi naa ça dit dire qu'on a beau le critiquer, il a, il a amené une canne. Si c'est, il est dans une dynamique. Qualifié de Coupe d'Afrique. Et on a véritablement le noyau qu'il faut pour aller espérer regagner une autre. mais des <laughs> la mu apport bu mu am ca Man City. Ah, moom amagu ko si Norvège ba pare du dem euro moom. non porté ko éliminé du dem euro. tey jii booy xool attaquant yi si tu sors de la France euh, gisuloo pratiquement yeneen dëkk yi daan am grand grand attaquant yi tur yu yu mag yoo xam ne. effectivement boo demee coupe d'Europe coupe du monde ak yu demee noonu mais xoolal Argentine bi gagné coupe du monde bi. regarde dans par quel moyen la gagné coupe du monde bi. Il y a eu, l'Argentine a imposé un, jeu déroutant durant toute la Coupe du Monde. nga comparer quoi qu'il y ait une équipe yi équipe France bu dajal Coupe du Monde nga xool composition France euh, nga jël ay Marcus Thuram ay Kolo ay Giroud et consort nga xol composition boobu non te pourtant. la la composition est-ce que toi tu as aujourd'hui un un animateur c'est-à-dire moi j'ai rien contre Aliou Cissé. mais ñun Sénégal lu ñu jël bal bi défense. dégager ko yëlla attaquer ay non non non non non euh, Salou nga 30 secondes hein. je ah. dis encore une fois. est-ce que tu as un animateur déposé xam nga xam nga le football. le football Cheikh Omar ku koy seraan chaque jour dina la wax ne le football aujourd'hui ñu fi ngay am numéro 10 numéro 8 numéro 6 numéro 5. le football a tellement évolué. collectif hein? ba nga au-delà du collectif da ngay a aujourd'hui l'apport des latéraux. tey le Liverpool. ah ah. non le Liverpool. nga l'apport des latéraux. le Premier League nga l'apport des latéraux c'est pratiquement des excentrés. moo tax sénégal ñun Sénégal quest c'est ñoo toll ci non en plus des latéraux il y yu baax ca Le Sénégal Sénégal ñoo toll gom si foo xam dañuy fogg ni ay ay football ñom Zico ay ak ñom ba tey euh, daanaka moo fi moo moo fi nekk. il faut que est-ce que comprendre nga li ma la wax. c'est-à-dire bal bi. nañu bàyyi Isaalu jël mu jéggi bi. non c'est parce que non c'est pas c'est parce que seetaanu Sénégal Brésil. Mohamed, si tu as suivi le match du Sénégal-Brésil, c'était un match de référence-Brésil. Hum. Le Sénégal a joué. Non, non, non, j'ai dit techniquement, techniquement, ça techniquement, techniquement, le balle, passe, etc. Hier, avec le Cameroun, le Sénégal. Ça, si, si, on l'a fait. On l'a fait. Aujourd'hui, on a même confisqué le ballon. automatisme un joueur clé. Il y depuis, depuis 5 ans, 7 ans, 8 ans, ans, 10 ans, il y a football Mais Lamine, sur le Lamine national, nous avons dit, salut Joseph. Bailen, Bailen, t'es là. bàyyi leen gis nga Sénégal dañuy teel kenn mooy fël fenn rek nànk la. non mais dafa war a. mais nàmpale daa ñëw mais mais mais boobu boobu nag. nàmpale daa ñëw mais moo war a def carte eh, bi en deux en eh. en côté oh, eh. en deux en côté. ana yemal yemal seen zone. waaw yemal yemal. moo ma ciy génnee yemal moo ma ciy génnee FC Barcelone. alors salut Joseph. ñu bàyyi la yow itam nga defal ñu débrief par rapport ak Sénégal Cameroun est-ce que euh, bon. déjà est-ce que c'est nga match beaucoup cette année est-ce que xel dal na ci perspective du euh, on a gagné par chance wax fa yalla mais bien sûr man loolu la gis parce que Cameroun a na penalty buñu ñu sifflé mais bien sûr ça aussi il faut le il faut le qui